ajibu daan yàlla muy baat ba bàyyi laay woote muy baat ba yónneen woowe woon waa Makka ak ahlu Sham daa di leen jox baatu tawxiid lixlaas loolu mooy baatu laa ilaaha illal laahu gëm xayrul anaam bàyyi laay yàlla daat koy jox ngëneelam boole kook ay mojizaat muy la nuy xàmmee ndawal buur laahu mi rabbul anaam mas na randal géej ba tey géej weesuul rëddëm wa mooy seydi haadal jinsi yow kay lanu doon xaar yaa imaam mooy ba géej feesee te feesal néegi waa kër maam libaas ba mu feree bàyyi laa yi jug ànd ak ña gëm sey naa limaam dem tefes rëdduura dem naat géej gi dootul jàll fii yéen a dul xam waaye géej gi xam na may kan fil anaam bi dini kun mu temps bi nen fa wallaahi maa lanaa diini ahmada yonti yàlla muhammad moo jëkk feeñ fi di jantub diine bir na mim réew leer yaa ngi baawaan ba suudaan ñuy xëccoo may gi ñoom danoo xamul xaw su borom diine moo yëkki aji boo ni jaam yàlla yéen laawoo nit ak jinni ñëw leen jaamu buur bi yeyoo sabal allahoo jotal sa booteru yëpp a ngi wax naan lu fi fiiru dina ñëw seet si fi moo di soowoo ba